asalaamaaleykum wa rahmatullah kon fukkee lu guddi ga ak juróom-ñeent ku ca julli juróom-benn rakka bu ci nekk mu jàng ca faatixa benn yoon ak qul huwallahu juróom-ñaari yoon googu julli nag sëriñ bi nee na ak paye moo di na te ku ko julli seytaan dana lay daw te boo ca ñaanee sa ajo yàlla dana la ko fajal te it faw da nga deyaale ngëm te ñey njëkk a tabbi aljanna ca ngay bokk kon fédération Tutank Touba Toscana ñoo leen di ñaanal kooru jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh